Notre plus grand plaisir est de vous servir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre émission L'Homme de la semaine, l'émission qui est au suivi de toutes les générations sur Wassai TV, Dakar Midi et Kirik Dakar, la télévision, les télévisions qui ont décampé les décors, euh, mais visiblement bien partout au Sénégal et eux à travers à le monde comme d'habitude tey nag day am benn daanaan bu mag ñu fi dal ñëpp koo xam Sénégal daratul ñu koy présenté ñu naan ko Ndiogou Mbaye na bagage yi dugg salaamaaleykum Ndiogou. maaleykum salaam moomu maa ngi lay nuyu. Mm. di la ziar di nuyu téléspectateurs yi. ak képp kuy seetaan yi maa ngi lay seetaan. Mm. maa ngi lay fekk fi ngay seetaanee. Mm. di la nuyu di la ziare di la jox sa wàccuwaay di bëgg ñëpp di wax peace and love. peace and love yu bëggee maa ngi bëggee ñëpp daal man Ndiogou mbay Ndiogou mbay à chaque fois bu ma koy waxee nag suñu xel yëpp dem si xale jigéen xale jigéen bëgg nañ ko lool lool lu waral lool. ah mais xam ah, nag samay doom lan. say doom lan ñii samay yaay lan. Mhm. ñii samay bàjjen lan. waaw mhm. ah, ñii ñii ñii. sax samay soxna lan mën naa leen takk. Mhm. ndax yàllaa ne nañ takk ci ñeenti soxna. tey pare nga pour takk ñeent soxna. non man isu damay am ñeent ak benn takkoo. ay loolu fort ay. ak benn ak benn takk suuf. ak benn takk suuf si ci suuf. si suuf ci suufa suuf. <laughs> mu doon loo xam ne de waaw tey bu ñu bëggee xam maanaam kan mooy njoogu Mbaye. Mhm. waaw Ndiogou ko bëggee xam mooy Ndiogou Mbaye euh, di di di di ndaanaan. Mhm. Euh, juddu ci ndaanaan juddu ci ngéwél. Mhm. màgg ci yaroo ci. ndax dañ ku juddoo ci daqaar yaroo ci lingom kenn doo laaj forox. waaw tollu kay ngay def. yàlla dogal na ma jur ci askanu ngéwal euh, suñuy baay. Mm-hmm. nekk ay ndaanaan suñuy maam nekk ay ndaanaan. Mm-hmm. kon ñun yaakaar naa ni bu dee laajte Ndiogu mbay suñ ko dee wax. Mm-hmm. fii la ñuy fanaan euh, Ndiogu ngi nii ndaw la buy door. Euh, waaye nag ku keree maanaam société la. yor groupe am Euh, di doxal ba mu neex. di doxal ba mu neex. waaw Ndioukou Mbaye kañ la commencé dugg maanaam dugg si lii si musique est-ce que musique dafa nekk loo xam ne peut-être li nga doon la wala talent la boo xam ne yàlla moo ko def si yow. waaw musique bi nag euh, maanaam lu ma doon la mais dama ko dem jàngi. Mhm. ndax maanaam doon rek doyul. Mhm. li ngay doon ba pare après nga dem jàngi ci say mag. Mhm. comprendre nga. ñun dañ ko jàng ci mbedd mi ba pare dem jàng ko ci école des arts yi. ndax boo gisee man dañ ko jàng ci mbedd yi. mooy dañ daan woy ay ngénte mhm. ay xumbal mhm. ay tuur mhm. di woy ci bongo di woy ci sabar yi yaa ngi dégg ba mu yàgg ñu dem nag ci musique nekk ak suñuy mag ñu ni teg ci kot comme kan ku ci mel ni jiite maalaw sama mag la ndeysaan ku ci mel ni Malla Mbaye sama mag la sama mais à part amoon ngi benn idole boo xam ne peut-être Sénégal yëpp xam ne nga mu nekkoon sa référence Mm-hmm. waaw mais idol moom dama ko bari le ci mel ni papa Youssou Ndour sama idole la. Mm-hmm. ma koy nuyu. Euh, parce man képp ku mën a way rek ba ci xale bi doog a judd sama idole sama idole la. Mm-hmm. man xeeb ma kenn xale bi doog a judd am ñetti at lamintaal sama rakk la mais bu mënee way rek di ko teg ci yoon damay roy ci moom man ñëpp lay roy. ñëpp mais nag ci li may roy mooy ci lu baax. mooy wax lu baax. def lu baax def lu baax. jëf ju rafet rafetal sellal jàmmal jàmmoo dëkkal dëkkoo happiness ban instant nga toog ba si yàgg nga xam ne man mii kat Ndiogou Mbaye naanaan laa comme ni ko waxee say kàddu que war naa jël musique Sénégal teg sama loxo. waaw mais man man bi ma juddoo rek laa xam ni naanaan la ndax bi ma juddoo sama yaay di sama bàjjen. sama baay di sama nijaay may bete bette. du doy waar. ci laa nag xool sama deret. Hmm. xam ni sama yaay li sëñ Fall ni woon maay Sénégal ma xam ne man Ndiogou Mbaye maay Sénégal. Sénégal si mbalax maane. waaw ah. non. boo passé ci mbalax maane ndax mbalax maane am na ñoo xamante ne ñooy àdduna. Mhm. comprendre nga. Mhm. ku nekk rek li nga doon moom boo ko bañee dafa fekk nga gën caa ñaaw te nit li nga doon rek nga mën a wax. Mhm. mën a wax li nga doonul. waaye fii loo fiy jaay rek. am na ku la ko ëppale. mais des fois tamit di nga toog ba si yàgg peut-être yaa ngi koy wax sànq toog nga ba si yàgg ngay woy ay mariage wala ay ngénte ak nu mu demee noonu. Mm-hmm. Euh, tong ba si yàgg nga jàpp ne man mii kat mun naa dem wut sama group kañ nga toog ba si yàgg ne man Ndiogou Mbaye pare naa pour mën a wut sama groupe pour mën a dugg si musique sénégalaise. waaw man nag ndeysaan nu ma woy ay ngénte ay mariage sama benn mag nag moo tax ma am groupe. Mm-hmm. su ma groupe c'est à moom. Mm-hmm. ma sama créer sama société c'est sama mag jooju moom moo tax ma am groupe. depuis kañ nga commencé def musique. ba nga juddoo man man non bi ma juddoo defuma musique dama doon woy rek. Mhm. kañ nga commencé dugg si musique carrément. Ah, musique bi ma ci duggee noonu ay deux mille deux mille deux mille mille deux mille quinze deux laa dem doo ko dem école des arts mais avant deux mille quatorze nag maa doon woy. bien sûr. nekkul ni dama woyul woon. Mhm. maa doon woy ay simb. di woy ay mbapat di woy ay ngénte di woy ci kër gi. bu ñu toogee samay mag dëpp ay paan. ngay woy ñoom day biram. comme comme comme kër kër ngéwél rek comme ni muy demee à chaque fois. waaw bu dëppee ay paan <coughs> di woyandoo. Mhm. ñoom day biram bu ndee woy sama benn mag ak sama benn yaay ndey koor du mbay. Mhm. bu ndee woy nii ci kër gi may aw man. mu bokk ci woy wi su ma jàngee ba wàcc bokk ci woy wi. la ngeen doon woy may daan xawaare rek. comme naan xawaare xawaare yaay nañu xawaare ci kër nañu xawaare yaay dañuy xawaare ci kër gee loolu la daan way ndeysaan dañuy xawaare ci kër ma jooja borom gaal ñun ñii dañuy xawaare ci kër gi. ndeysaan lépp ci kër gi lépp ci kër gi. gars yi dëppaan yi. kër kër kër kër maanaam loolu la naan def ci biir kër gi. xawaare xawaare kaay leen ñu xawaare ci kër gi. kër gi maanaam xawaare bi du génn kër gi. day nekk ñu teg añ. billaahi. boobu maa ngi doy ni comme Lamine sama rakk. Mhm. maa ngi am ay 9 ans 10 ans commencé xàmmee. di toj kër gi. ma commencé xàmmee pas toj kër gi sax na samay mag ñoo ma daaxoon a way. Mhm. instant boobu ma damay aw rek. nekk seen biir di jàng boobu ñoom sax mënuñu maa jàngal. Mhm. ndax ñoom mën na ñoom bokkuñu ñuy def ñoom dañuy woy woyu ay traditionnel. ak cosaan la ñuy woy. comment nga te man beneen domaine laay woy damay woy cosaan damay woy. damay woy moreen mhm. damay woy lépp damay woy lépp loolu dama ko jàng parce que mënoon naa traditionnel mën naa ko mhm. parce que ci laa juddu mais leen loo xam ne mënoo ko si dem dem li ma mënul nag mhm. laay gëstu ba léegi nag maa ngi jàng nag parce que mënuguma dara te vraiment njàng du doy. mais Ndiogou Mbaye ak fu mu toll Sénégal yi foo tourné ñu naan Ndiogou Mbaye Ndiogou mhm. est-ce que tey jii dépassé njàng boobu ngay wax parce que tamit. Ah, bu ñu xoolee xam nga Youssou Ndour. Mhm. xam nga Youssou Ndour mhm. pareegul pour jàng. koo xam c'est le maestro. waaw mais pareegul jàng parce que moom boo gisee ni muy doxalee. Mhm. nga xam ne pareegul pour jàng. mais jàng bi jàng bi yëpp da nga war a dépasser ay classes est-ce que Ndiogou Mbaye fi mu toll nii yaakaaru woon fu nga toll. Mhm. à l'instant T bu ñu xool say morom. àdduna nga dépassé fii àdduna. Mhm. non ñun macha allah vraiment ñu ngi sant bu baax. waaw ah waaw sant sant ñoo ngi boo ñu xoolee sax xam ni ñu ngi sant. boo nu xoolee. xam ni ñu ngi sant maam yàlla bu baax a baax. di gërëm Seydina Mohamed maa ngi jégalu. amul problème ci yaa ngi dégg <laughs> boo ñu xoolee xam ne ñu ngi sant mhm. ndax li nu am dañ koy sante rabbana ndax am na ñoo xamante ni yaa ngi dégg. Mhm. bu ñu amoon li ñu am dinañ sant. Mhm. ndax yàlla dañoo juddal may ñu ay tànk. may ñu ay loxo. may ñu ay bët ñuy gis. loolu weesu na sant. mais waxuñu waxuñu sant boobu fii eh, eh, instant on va parler de la musique. Mhm. suñu wax maanaam si cadre musical lay wax. waaw ah, mais cadre musique boo déggee ma la maa ngi sant. Mhm. mooy maa ngi tëgg tout toujours tous les jours damay tëgg. Mhm. kon loolu weesu na sant. alhamdulilah rabi alamin bu waxee wax nga ko. ñu ngi tëgg muy def ay weesu gise fermé barki dem ñëw ñëw nga Sorano. bien sûr mais gis nga la fa xew. bu ñu waxee Ndiogou Mbaye wax nga ko sànq. ne waaw gise fermé kay loolu jarul dépassement. ba fa fa laa jëm bu nee hmm. 2014 nga commencé commencé lii di musique. moom nga wax waaw 2014 ci laa dem di jàng musique laa. Hmm. waxuma ci la am groupe man 2017 la am groupe. 2017. waaw ci laa créé groupe. su ma hmm. mag moo tax ma am groupe. ça te boo ma posé question da may déglu. maa ngi lay déglu bu baax mais maanaam fu fu nga bëgg jëm fu nga bëgg jëm foofu laay bañ nga jëm. Mhm. tey jii nii bu ñu xoolee presque am na ñoo xam ne 2017 ñëwaguñu si musique sénégalaise te fu mu toll nii. ñan la bon bëri na du ma du ma. kan la kan la tur mais bu ñu xoolee fii. non il faut nga wax tur. non pour ma mën a comprendre. soo bëggee suñu waxtaan mu neex. Ibro Naajo kañ la ñëw. non moom Ibro Naajo bi muy woy mm-hmm. Ibro Naajo ñun la doon àndal di woy bi muy woy du 2019 da ngay déglu dama ne la bu bu Ibro Naajo Ibro Naajo bi may wax moom xam na ko Ibro man Njoogu Mbay may wax ak yow mm-hmm. sa frère mm-hmm. sa doomu ndey bi nga daan nekkal di lekk ndoog moom di naan ndoog moom ngeen di woyandoo sibb te léegi mu raw Ibro Naajo non Ibro Naajo bu ko raw bi yaay gis raw non man lu man du may gis mais internet yu ñuy seetaan ak maanaam ñoo xam ne ñoo ngi si milieu showbiz ñoom laa. waaw non man mën naa jàpp ne sax dafa ma raw parce que xam nga jàpp dafa ma raw. Mhm. gis. mais man Ndiogou Mbaye non du man maay gis. mais internet mais benn internet bu wax loolu. non man du ma man du ma sama xalaat laay wax. lan lan mooy raw. raw si si musique si mooy raw daf ma daax way. ma ëpp ay programme mhm. dafa tëgg fu ma tëggul. Mhm. dafa dem Europe te dewuma Europe. si yooyu yëpp dinañ si ñëw yëpp après. waaw léegi léegi kon lan mooy raw laa bëgg a xam daf ma maanaam moom bu taxawee day way man du ma way wala qu'est-ce qui se passe. Mhm. lan mooy raw. raw mooy maanaam tey jii nii Ibra Naajo bu daal di génnee si mbedd mi Sénégal yëpp peut-être mun nañ xam wala bu génnee son tey même pas une heure de temps am nombre de vues par rapport ak kii di ak ak kii di. non non non yow duggoo sama compte. man boo duggee sama man boo non non taxawal rek man bu ma dénnee lu ma génnee. Mhm. balaa moom 30 minutes waxuma rek man. Mhm. waaye famille peex rek. famille ba ma bokk mhm. dañuy seetaan ba mu doy di seme mhm. kon yow yaa ngi réer may <laughs> Sénégal may mhm. réew mi maay yëmbal kenn nga jàpp ne fu nga toll nii normalement foofu nga war a toll non fi ma toll nii fi ma toll nii euh, du ma ni dama koy dépassé. non dama waxuma damay waaye damay damay damay ñaan rek man ab jaam laa man nag ni may gis damaa xaw a gëm yàlla de. Mm-hmm. man waykat bu gëm naa la. Mm-hmm. rabbi si jëlaali wal ikraam. Mm-hmm. maanaam damaa mënta ndamu. te lu ma musa ndamu. ndamu baaxul sax. si dégg nga ma man lu ma lu ma def def def def damay wax alhamdulilahi rabbil alamin du ma ne li may def ni dama koy dépassé par force. parce que doxalu ma. yàlla mooy maye. mais ñun jàpp nañ ci suñu xol ak suñu wàccaay ak suñu oyof. di suufee suñu bopp ci yàlla di ko wax ni yàlla yàlla defal ñëpp jàmm dafa ko mboolem jullit waaye li ñu bëgg rek mu ne suñu xol yàlla na ko yàlla defal ñëpp ak mboolem jullit mhm. waaye dama ni dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii mhm. waaye nag xam naa li ma bëgg a def mhm. te incha allah rabbi dinaa ko def incha ma def ko nag day sopp yàlla rek soobul yàlla du ko def. mais on parle de la musique te bu ñu waxee musique il faut ne ne lay tudd lii di showbiz affaire de moom amul affaire de yàlla ak nii nii maanaam yow yaay confirmer sa talent mu daal neex Sénégal yi mu daal kii non musique mais am na yàlla. da ngay dégg non non non pour yàlla. mais am na ñoom ñu ngi koy dund da dund pour yàlla. man damay man lépp lu may def ci àdduna. Mhm. dama ci xool sama diggante parce que je suis un musulman. comme ñëpp comme jullit la comme Sénégal 98. non mm-hmm. am na ñoom ay jullit lañ mais dunduñu jullit bi. am mm-hmm. ñoom ay jullit lañ. ay musulman lañ mais ñoom duñ tëdd sax. Mm-hmm. ba xalaat ni ñoom bis na jot. ñu teg leen ci kuusu bàmmeel. mais Ndiogou Mbaye nag du cadre imaam yaa dugg ci côté yàlla yow. non que parce que man boo duggee boo duggee non non dama ni man man. sama lépp dama koy tax ci loxo yàlla nga bëgg ni ma soo bis amul yàlla loolu benn artiste moo ko fi waxoon muy Omaro. non dangay déglu moom moo taxawoon. bu bu dangay déglu loolu nga bëgg animateur la yaa ngi koy roy. non yaa ngi tooñ non roy du bu wax naa. Eh, kooku sama seex la sama jumeau la bu ma jaxasee ak moom. Omaro mu ma jaxasee ak moom. chaque jour mu invité ma télé moom njëkk jox micro donc kooku maa kooku xam nga yow moo jox micro. mais man yow bi nga ko xamee yàggul. mais kooku taalibe Serigne Saliou la bëgg Serigne Saliou mhm. di dund yàlla loolu xam naa ko si moom. waaw ah, tey jii fa laa jëmee lu tax sànq ma la ko est-ce que fu nga doon toll tey ko euh, mosoo nga dem lii di euh, concert kii di Sidi Diop bëgg a woy tamit woyoo est-ce que du loolu loolu moo tax ma ne la est-ce que fu nga doon toll tey jii nii ñaa ngi tudd sànq kii di Ibra Naaj ak say morom yu bëri am ñoo xam ne bu ñu demee soirée Sidi Diop sañ ñu leen bañ jox ñàkk jox micro. léegi da ngay jël benn image ah, mhm. tontu bi. non waxuma loolu de waxuma tontu ak image ak yooyu dama ne est-ce que mës mës nga ko. non dañuy déglu nag yow maanaam tungu ne du toog. Mm-hmm. tungu ne. Mm-hmm. du toog ñuy nataal. waaw Sidi Diop mu mm-hmm. tudd dama dem soirée am joxuma ma woy. dama ne ndax mosoo dem soirée am jox la woy. ndax mosoo nga dem soirée am ma woy. waaw non saa ma dem ma woy. mosul am. mosul am loolu amul. Sénégal yi ñoo ñuy déglu mbokk internet. bii kañ la woon. bii samedi paase. la waaw lii dama ne bi paase la dama ne la sànq yaa noo waxu yàlla kon ça veut dire que tey jii lépp looy wax di mhm. nga si xool si sunu borom. est-ce que mus nga dem soirée Sidi Diop. bëgg yéeg te yéegoo. soirée Sidi Diop. Mhm. Euh, dem naa fa. Mhm. man ñaari laa mos a dem ñetti astafurla ñetti yoon. Mhm. laa mos a dem soirée Sidi Diop. benn bi dama ñëw mu teral ma. jox ma ma woy beneen bi dama ñëw baal si. maa amul woon envie maa ñëw yéeg sama VIP. ànd ak sama gang. mu ñuy way ñu koy may xaalis man Pape Torino. yaa may xaalis Sidi Diop. da ngay déglu nag quoi non da ngay déglu waxu man maa ko may xaalis ñu koy teral ñu koy may xaalis mooy ñi ma àndal ak man même bu dee man sax mën naa ko may xaalis mhm. parce que am xaalis moo ko may bien sûr yàlla alhamdulilah si nga ma maa ngi sant alhamdulilah mhm. bul dugg ci gàmb bul dugg xaalis xaalis du dara këyit la rek non xam ko damay léegi mhm. da ngay boo bëggee suñu waxtaan neex da ngay déglu nga posé ma question ma répondre la wala yow bàyyi la ak wax ci comme que yow waxkat nga mbaa yow ñooy wax ñooy wax moo suñu liggéey comme yow Sénégal yaa ci dàq wax <laughs> waaye nag wax deesu ko man da nga koy teelu ndengañ ko dóor ko mbot mu dem. moom laay def nii waxkat boo gis seen kër am na waxande. Ah, waaye wax bu juree doom laaj ma nu muy tudd. muy tudd déglu. moo tax maa lay déglu. boo ma dégloo di nga dégg. acca yow yaa des. Ousseyn Mbaye astafurlah. <laughs> Ousseyn Mbaye Ousseyn Mbaye ko wax sama xarit. ma ne. Sidi mhm. Diop. Mhm. ñett yow laa mos a dem soirée mhm. bi mu juddoo ci njëriñ beeg góor. bi mu jur benn bi damaa dem mu teral ma. ma woy ba dagg mu may ma xaalis beneen bi dama amoon envie baal dama ànd ak su may frère Ndaama Torino Pape Torino ak kan man Ndaama Torino Pape Torino je pense ñu àndoon de biñ àndee mu woy ñoom Ndaama woy Pape Torino mu àndandoog ñoom mu gisaale ma woyaale ma may ma ñu may ñu teral ko mhm. comme ku bugg a feeru xaalis mhm. ñoo ñu may ko xaalis xon mhm. comprendre nga après mu jeex ñun ñu dem taal suñuy oto dem ñibbi. Mhm. beneen bi mooy samedi bi passé bi ma ñëwee bi ma séenee rek. Mhm. la mu njëkk a def mooy daf maa sagal man bi ma yëgee ci kaw seen bi sax. mënumaa mhm. woy man boo gisee ngir teral ji ma teral. kon kooku sama xarit la. sama frère la. sama doomu ndey la. sama confidente la. sama lépp la. bàyyi leen jaxase artistes yi. mais seytaane ngeen trop. <laughs> lu la neex waxal xam nga bu baax li ñu la wax mais bu ñu jógee foofu si Sidy Diop est-ce que tey jii nii am nga ay contact ak kii di balaa Ballago sekk waaw kooku kooku kooku weesu naa am contact ci moom. man hmm. ñoo ko benn maam. may sa biige maar. man as Seck moo jur Aminta Mbaye Aminta Mbaye moo jur Njërebe Njërebe moo jur Njóogu Mbaye. Hmm. yaa ngi dem soirée am. soirée nag yàlla dogal na ni. Euh, maa ngi fay dem di baali. waaye da ngay dem soirée jàmm di baal rek tant que artiste. attends attends dem naa soirée baal benn yoon. Mm-hmm. demaat baal VIP laa nekkoon scène bi mooy xat. Mm-hmm. man su ma ñëwee gis artistes yi bari du ma yéeg. lu tax parce que man xëccoowuma li may def man damaa mën li may def ñiy yéeg foofu mal. waxuma maa dàq way de. Eh, non non non bàyyi li ngay wax nag xoolal man man affaire ragal lii laa laay bañ nag Ndiogou Mbaye Ndiogou à chaque fois bu ñu waxee artistes yi fii ku fi toog da ngay assumer. mais yow ma la problème maa léegi ma sànq wax naan da nga may déglu. léegi te ko. waaw ne la. Mm-hmm. artiste maanaam milieu showbiz la ñuy wax. Mm-hmm. showbiz show maanaam mooy lu tàng. Mm-hmm. tey jii nii mënoo ñëw sànq dem nga ba naan ay artistes yu fa nekkoon maa leen mën nga daal di retenir taxaw. mais nag nit ñi nga xam bañ. non non da ngay assumer xam a assumer may seetaan parce que am na ñoo xamante ni dañ lay bëgg bëgg bëgg. kon nga wax nekkul ci maanaam nekkul ci man xam na nekkul ci man parce que bu nekkoon ci man dama koy àggale. kon ah, waa léegi dama la bëgg dama la bëgg wax ni nit. Mm-hmm. nit kenn mënul ñëpp man ku ci ne nañ bàyyi yaa fi man gi fi nekk ku ci ne am na ku la saf. musique moom fu mu toll nii. Mm-hmm. Wally Seck fi mën ko wax. Wally Seck mën. wala ci yow d'accord aussi moo mën ci yow. yow nag non man Ndiogou Mbaye d'accord ma ci loolu. xam nga d'accord ma ci loolu. Mm-hmm. parce que moom daaxuma way. isi amay dégg. waaw daaxuma way. barke Cheikh Abdoul Karim Mbacke daaxuma way. seede yàlla. bi billaahi billaahi billaahi dàqu maa way waaye nag. dàqu la way te waase ku mu àgg àgg ko fa. man Sénégal kenn dàqu ma cee way mais nag da ngay déglu da ngay déglu nag bala nga may jaxaseeg nit ñi. wala ma noppi waxoon na ko fi Sénégal mën ngaa noppi wala mënoo noppi. dama ni Wally mhm. ma wax wala nga wax. waxal laay déglu. wala mu noppi. ngeen Wally Seck dàqu la way. ma jaxase ak kenn. non jaxase la Wally Seck dàqu ma ak way waxtaan la sama sëriñ barkeb sëriñ Abdou Karim Mbacke mhm. kii bàyyam laa la waatal sëñ Fallou. mooy suñu seen ñun ñëpp sëñ Fallou mi doomam laa la waatal. Mm-hmm. dama ne waal dàqu maa waaye. Mm-hmm. Euh, dama koy nangul ni. Mm-hmm. li muy musique Sénégal. maanaam xale bu ko ci bëgg a dab. di nga liggéey Ndiogou Mbaye bu bëggee dab waali day liggéey. gën naa ci côté way. ndax macha allah. ndax li may wax nii sax mën naa koo catu te bëgguma catu nit. nit lépp lu muy wax rek. day wax macha allah. civilisé na. mu mhm. ngi dimbali ay nit. Mhm. mi ngi def loo xam man dafa guma ko. li Wally Seck li mu def ci musique man dafa guma ko. Mhm. fi mu dem man dama guma fa. li mu liggéey man liggéeya guma ko parce que moo ma njëkk ci néeg bu lëndëm bi. te mën na maa wax njóogu mën na ko mbàkkee mënu ma toogal nii maay sa mag. moo yónnee ma dem sa dégg nga ma ndax sama mag la. moo mag mooy sama kilifa. te dama koy cëral ba ilaa yawmi diin akbar mais bu dee ay woy ak yooyu dañ ko génn da ngay gëm sa bopp. xam ni yow yaa ngi dégg. Mm. ku mën a ñëw ci àdduna jàppal ni yow yaa ko dàq woy waaye nag na nga ko cëral. te xam ni moom sa baay la ndax mag baay la. Mm-hmm. waaye xoon baay la ci man ndax sama mag la. Mm-hmm. mu koy cëral rek respecté ko. Mm-hmm. mais dañuy génn ci ay côté ma ay way ak yooyu après indiwaatal beneen question. mu nekk loo xam lu am solo mais madame et messieurs comme ni ñu ko gisee mbokk mbokk internet yu Wassare TV Dakar Media Click Dakar euh, ñoo ngi toog ak kii l'artiste boo ne moom la ñu tuddee le Mbappé euh, le Mbappé de muy kii di Ndiogou mbay gis ngeen fu ñu dugg mais dafa ba léegi dafa des beneen problème boo xam ne tamit sénégalais yi peut-être gisoon nañu fi artistes yëpp man jour boobu rus pourquoi gisoo fu Ndiogou Mbaye hmm. muy stade de Coro ba ñu koy inauguré stade Abdoulaye Wade. Ah, woon nag. voyagé woon. mu voyagé woon nekk man woo nañ ma. Ah, artistes yi ko booy man lu xew Sénégal ñu ma man maay xale bi xew ci jamono maay borom bagage yi. Mm-hmm. man bu ma ñëwul bagage yi du dugg. loolu moom dafa leer bagage yi dugg moom man bu ma ñëwul xale yi duñ yi duñ jug ambiance. man maay yëkkati xale yi maa leen di chauffé loo mm-hmm. parce que bandi maay man Ndiobou Mbaye yaa leen mën gaa yi. non du cadre man de yàlla moom man baal man man yàlla ok amul problème mais maintenant garaaw. kenn mënul dara. waaw d' accord man man man woon damaa mën. man damaa mën. voilà. Euh, tey yàlla nga yàgg mën. amin yàlla ba yow yàlla nga yàgg mën. Mhm. te xam naa yow tamit mën nga ba pare da ngay jéem affaire de kii kii yooyu noonu quoi moo tax. Euh, maintenant euh, tey jii kañ ngay dem extérieur. extérieur. dinaa dem de. kañ nga gëj naa fa trop. musoo fa dem de wala mosoo fa dem. ah dem naa fa moom mu la fen dégg naa deux deux jours nga fa am. non mën naa fa def sax une jour. non damay laaj. non non dinaa dem parce que. xam nga dinaa dem sa dem bu nga dem laa wax. non dinaa dem dem dem dem dem yóbbu ay nit. xam nga loolu ñëwagul léegi nañu wax si dem bi nga dem dégg naa deux jours nga fa def. waa mais mën naa fa def sa une jour loolu loolu loolu xamoo dara maa la mën a expliquer gëj nga fa gëj man la gëj naa fa. ñaata jours nga fa def noppil. te wax leneen benn question damay laaj damay ne la ñaata jours nga fa def. ñaata jours yi ma def loolu concerné wu la. dégg naa mbokk am na ku ma déena ma euh, deux jours nga fa def te deux jours yi peut-être gars yi ñu bëri na wax naan Ndiogou Mbaye lu ko tàddee lu gën lu gën a bëri mooy tey jii day changé moom day comme day changé à fois tey jii bu amee beneen ménageur soo mu changé waat grand soo mu changé waat. non man man nag sama àdduna ñaari ménageur rek laa ci musam moo juddoo sama ndey ak sama baay ak yaa ngi dégg muy Najib. Hmm. ak Baye Keleel Mbaye. Najib moom dégg naa mooy loolu. waaw non Najib Najib man ak moom ñu ngi ci jaamu lañu nekk. lu tax ngeen tàggalikoo kon. parce que dañoo dem ba mënatuñu liggéey. Mhm. te jëkkër ak jabar dañuy sëy ba mu yàgg ñu tàqalikoo. ce n'est pas l'exemple parfait désolé. non xam nga tey li tax ñu bàyyi bàyyante. Mhm. Euh, man du toog di la ko expliquer am te du ma la expliquer. Mhm. parce que maanaam je pense que nga jégal ma quoi ci kàddu yi parce que waxuma ak yow. mais damay wax damay wax ak doomu aadama yi may seetaan pour l'instant waxuma ak yow. ñi may dama leen wormaal bu baax ndax dama leen respecté vraiment euh, mais li tax man a moom àndatunu euh, yaakaar naa ne jógewul ci moom jógewul ci man mm-hmm. yàlla moo dem ñuy ànd bu mu yàgg yàlla ne fii lay yem mm-hmm. mu yem foofu noonu mm-hmm. te bi mu fa yemee ñaawul ndax musuma toog c'est la première fois biñ biñ biñ tàqali ko léegi ëpp na ça fait trois ans xaw ma deux ans maa ngi ciy a wax nii non laaj nañ ma ko ay yoon yoon yaa ngi ko mujjee laaj mais du ma ci wax. Mhm. parce que samay mag dañ ne ma bu ci wax man dama ay kilifa. Mhm. mais comme que yow dama ci sama ménageur. Mhm. Euh, je pense euh, dama saa yi nag maa ngi job ay nit ñu bari. fu am nga ménageur wala. non man man ay ay ay ndaanaan lay joobal. ñu may ay ndaanaan lañ. mais dégg naa ay ndaanaan ngay joobal mais ndaanaan yu bëri comme ni koy waxee yaa ngi tëgg soirée yi. soirée macha allah moom foo foo woote mu daal di fees yaa ngi sax préparé après dee si ñëw. Euh, sa anniversaire boo xam ne lu am solo la. mais ñu bëri la naan Ndiogou Mbaye ba léegi mu commencé di tëgg ay maanaam ay ngénte ay jàkkaarloo est-ce que du lool peut-être waroo ko dépassé tamit. non man maa ngi tëgg mariage ba léegi ak ngénte. te même su ma demee foofu nag. non du cadre dépassement sa fan si ñoo bëgg nga dépassé foofu. c'est ça le problème waaw du cadre dépassement du cadre du cadre may tëgg. Euh, samay nit la ñu mm-hmm. may tëggal noonu ñooñu dañ ma bëgg Wally Seck day tëgg mariage mm-hmm. Pape Diouf day tëgg mariage mm-hmm. Sidi Diop day tëgg mariage ba léegi Youssou Ndour mën na sax tëgg mariage mais ak ak ni ñu ak yow koy defee du benn non non man ni ñu defee rek defee man mariage booy mën a def da ngay baas ba mu rafet woo waa Sénégal baas ñu décorer ñu tekki chaîne teg woykat bi ñëw micro bi s'il vous plaît yaa ngi dégg mhm. ñu teg lu rafet woy lu neex teg sono bu bien mhm. teg musicien yu bien di woy lu correct mhm. comme li ñuy woy soirée comme li ñuy woy feneen ak feneen ñun mariage yu ni g yëpp boo ñëwee doo parce que ay trois morceaux yu ni g quatre mu jeex mais si nekku sa sa problème vraiment maa ngi la wax maanaam tey jii euh, Ndiogou Mbaye ak Fancy duñ ko bëggee nit ñi ñu la bëggee nga waroon dépassé bi est-ce que nekkul problème ménageur moo tax non man man sama ménageur moo raw ci ménageur yi mooy papay ménageur yi nga naan wér nga yow sama ménageur mooy moo leen mën moo mën ménageur yi ne Sénégal yëpp parce que chaque samedi ak dimanche dañuy tëgg. muy tëgg muy fête ak muy tëgg. BST. waaw muy lijjanti ay contrat yan contrat la di non samay contrat du ma la wax. mais peut-être bokk na ci objectif yooyu. waaw mais samay objectif pour l'instant nag euh, sama projet bi ma nekk mooy suma album. Mhm. Euh, vraiment maa ngi ci di sàkku ñaan Sénégal di di la di wax yow nga ñaanal ci euh, di woo télé yëpp nag pour ñu jàpp ci promotion fii moom sa télé la ñett yëpp waaw mais waaw ñii nag <laughs> am na télé boo xam ne moom mm-hmm. moom laa gën a faral nag waaw mm-hmm. ah. muy Dakar Midi waaw parce que kooku moom njëkk jël nag mooy deuxième mag bi ah, boobu nga tudd mm-hmm. euh, ñoom ñoo njëkk ñëw ci ci yëmbal jël ma émission ànd ak idali baaxkat bi muy wax ni yàgg na trop la. 2013 moo tax ma la war nga dépassé fii 2013 kii euh, ñi ñëw si anniversaire bi mu doon loo xam ne lu am solo vaccin yëpp. Mhm. ñoo ngi koy waaj. ah mais mais mais yow. la mooy sa problème dépassé bi man fan laa man. fan laa tëggul waaw dama laa mhm. talent. dama la siraan saa naat la. Mhm. saa naat télévision yu bëri. ma gis sa voix. waaw mais xam nga la mooy problème maanaam ñun yàlla dafa dogal. danoo xaw a yor nag mhm. jukkoy li sëñ lu waxoon ni tepp tepp moo gën yuréet te ay ndaw lan nag mhm. te boroom karaw gu ñuul lan danoo ñàkkagul dara mhm. te dañoo maanaam dara dafa dañoo jaralul ñuy jaay suñu ngor kon dafa am nekk ci musique bi di jaay ay ngor wala non du cadre musique jaay ci ngor ñun dañu mënul euh, di yàqamti ndax xam na ni li ñëw man maa la fii ban ban laa la ko waxal. 22h48. li nekk suñu kanam. Mhm. li nekk suñu kanam. Mhm. dañ koy jëli te dara duñu téye. incha allah ñun. Mhm. li nekk suñu kanam dañu war cee jot. dinañ ni ko ñépp. téye te kenn mënu du nit moo ci mën dara du doomu aadama buy dox du nit. moo ci mën dara xanaa yàlla suñu. yàlla suñu waaye du man du koo xamante ni. da am karaw. ami loxo hmm. ami tànk yàlla rek moo ci mën dara hmm. ndax nit ki lu mu def nit hmm. muy sëriñ ab sëriñ bu liggéeyee nit mu jàpp yàlla tax damay déglu rek ma wax yàlla la comprendre nga man mii li may wax fii moom la soob bu ma woyee mu war a siiw yow boo waxee mu war a siiw moom la lépp lépp dañ koy jël teg ko ci loxoom bàyyi koog moom mu gérer. Mhm. ndax moom mooy dogal muy appliqué moo ñu gën a nekk star. foofu kay est-ce que yaa may dégg mhm. star bu mag bi moom la. mooy noble bi mooy garmi bi. <laughs> Diogo dama ko bëgg euh, si bii may den bi. Mhm. le 18 yaa ngi koy waaj bu baax a baax. le 19 yaa ngi jiw incha allah rabi. le 19 la maa ngi woo ñëpp. di woo Sénégal di woo àdduna. di woo Afrique. le 19 c'est mon birthday. sa la. Ah, le birthday. bu buzzee groupe bi la. parce que groupe buzzee groupe bi maa ngi ko defee woon Sorano. Mhm. le 24 décembre même pas 3 mois yàggul. mais bii ci la Ndiogou Mbaye juddu. Mhm. ma ci woo sama xarit yëpp ñi ma juddandool sama copain enfance yi ma jàngandool école. Mhm. suma maas yi maa ngi leen di woo ñu ñëw toog dagg suñu gâteau féete. ma invité woykat yëpp. incha allah invité naa sama képp kuy woykat. nekk sama morom. ak ñi ma mag. man maa ngi leen di invité. ci bis bi ndax bisu woykat la woykat yëpp a parce man nag chaque jour maay woyaate da ñëpp ñëw woy ma mhm. maa ngi invité ñëpp bàyyiwuma kenn mhm. ba kii doog a commencé woy mhm. man maa ngi lay invité ngeen ñëw di invité diaspora bi di woo Sénégal di woo ñëpp di wax ni yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na Sénégal jàmm yàgg ñuy belli di falaale di sànneeku <laughs> en tout cas en tout cas rendez-vous à surtout pas manquer le 19 incha allah c'est le rendez-vous des chics c'est le rendez-vous des bronzés l'élégance le raffinement dakaroise avec Ndiogou Mbaye incha allah rabi à surtout pas manquer man maa ngi ko incha allah. li ci kanam. rawati bët Ndiogou Mbaye mi ngi fi sénégalais yi ñu ngi fi nañ teey rek. ñëw. teey leen. dañu warate ay ndeysaan asgor su bëggee fu mu leen dellu fa day teey dañu naan teey ci ndox la ne waaye ci ni la dàqeew boo bëggee fu mu dellu fa <laughs> waxoon naa ko les hommes ah des na des na toog ndigu ma yëpp nii en tout naa ne ko sànq c'est rendez-vous année surtout manqué euh, les hommes les fem les plus en vogue de Dakar sont au cœur de ce parce que waxoon naa ne ko sànq xale yi Ndiogou Mbaye lañ bëgg mag ñi Ndiogou Mbaye lañ bëgg Ndiogou Mbaye lañ lañ lañ bëgg donc moom gis ko te instant yi instant yi dama ko dama ko pis benn benn boo xam ne fu mu toll ñoom Sidi ñoom Waly Seck man lañu bëgg man lañ man lañ bëgg ñoom loolu dafa leer billaahi man lañ bëgg mm-hmm. Mandiaye Seck mën la bëgg Waly Seck mën la bëgg maay rakam soo nu mu niroog Waly. Mhm. Mandiaye ngay gën a niroog nag. Waly waykat yi man maa gën a niroog moom. Mhm. suñoo bokk deret. voilà man ak Waly mhm. ni Waly doxee sax lay doxee ni muy solo sax laay. waaw waay waay yooyu non du dama ko imité parce que sama mag la. non yow da ngay dóor ah? nekk si ginnaaw. si ginnaaw non Sidi nag Sidi Diop nag ah, ah, bu siiwee c'est grâce à Waly da ngay déglu nag eh bu ma yëngal. pourquoi léegi artistes yi ñëpp bëgg défendre Wally. non da ngay déglu eh Sidi Diop laa taxaw di wax Sidi Diop. leen mhm. Sidi Diop da nga moo ko ni boo fëggee buntu bi. Mhm. ubbi wunu mhm. duggal forcel aar bi am nga ci place. Wally soxoroon bi mu koy wax yaa ngi fa. maa ngi fa. te seetaan nga vidéo yi. gis nga esthétique yi. gis nga lépp Sidi Diop dafa nekk ci yoram Wally ak moomul musique bi de. Sidi day doxal ba mu neex. mais yéen da ngeen topp si ginnaaw Sidi Diop topp si ginnaaw waa Sèye. kan moo topp si ginnaaw Sidi Diop non ah, attends ah, tey jii yow. yow man Sidi Diop dama ko faale man man dama faale Sidi Diop yow isa wér nga. Mhm. rakk nga naan ma kii. man Sidi Diop xam la. Mhm. xam laa ko jàppee. Mhm. comme Biram mbay mee taxaw. man na moom ñoo bokk ndey ak baay xam laa yéene Sidi Diop. billaahi. wallahi da ngay déglu nag max la da ngay jaxase fi mu ne nii yow. non jaxase wu ma la wax dafa leer. léegi artistes yi xam la ma doon ñu sonn. mënuñu juboo animateurs yi ñooy jaxase artistes yi muus leen xam leen ni Ndiaga Mbaye nee na bu njëkkoon ndaanaan da daan gane ji ndaanaan ndaanaan jàpp loxoom wan koy kéeram waaye léegi si ndaanaan day bañ ndaanaan léegi si ndaanaan day poñe ndaanaan ndaanaan day fekk ndaanaan fa mu waree doon ndaanaan mu naan ko doo fa ndaanaan xanaa xamoon ni ñii di ay ndaanaan ci naan man maay waykatu waykat yi bu ñu bëggee dégg ay way dañuy ñëw ci ñoogu mbay toog di déglu ay way maa doonu samay maam biraama kuma jaar kumba war a doggooy sama maam man maay ñuy may ee eh, ndaa ngay doon dama ko doon su ma neexee nelaw di way ay ah, toi si yaram bee tàng na dañ koy comprendre bu baax a baax il a une voix merveilleusement bien waxoon naa leen ko kooku mooy Ndiogou Mbaye borom le 19 incha allah rabi di euh, vous donne rendez-vous prochainement incha allah merci beaucoup kontaan naa si yow si boobu baax a baax a baax daanaa nga. seen love billaay daanaa nga. baal maax nag. non baal ambiance rek ambiance rek ma yëpp. Hmm. damaa bëgg émission bi neex rek dama lay coxotaan pour nga wax. <laughs> Hmm. parce hmm. yaa ngi dégg mu xaw a moo tax ma lay cox. Oh. mais xam naa ni borom baax nga. te jaxasewoo kenn damay kaf ak yow. <laughs> merci beaucoup merci mon frère. merci beaucoup et bonne continuation yàlla nga raw ci animateur yi. amiin incha allah ci barke Serigne Salim. amiin merci beaucoup frère. merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en attendant je vous conseille de manger beaucoup de bananes et rendez-vous le 19 incha allah avec Ndiogou Mbaye.